bi le soleil nag nege ni tey daal dinay indi bombe écologique bi nga xamante ni jamono joojee nag moo nga am ca diwaanuk Falémé ginnaaw bi nga xamante ni nag lépp lu jëm ci wàllum fer or ak jamaa ja nga xamante ni ñu ngi ko fay wër ñu ngay xamle nag daal dina jamono jile seen wàllum kaaraange dafa daal di taggatémbe moo waral ba le soleil nege ni tey daal di koy def ci xëtam bu njëkk enquête quotidien dikk ak ñun ci li nga xamante ni moom moo di gestion DGUP waxtu boobee nag muy xamle ni atum 2017 ba 2020 grave révélation yi nga xamante ne am na ca googule audit journal bi nege ni tey daal dina koy xëyee nag ak li nga xamante ne toll na ci ay milliards yu baree bare lu ci tolloo ko douze milliards jamono joojee nag dugal nañ ko ci ab opérateur boo xamante ne war na kaa dugal ci kërub liggéeyukaay gi nga xamante ne moom moo di DGPU waxtu boobee dañuy dem seeti ji le tin témoin le témoin dikk ak ñun ci croisade contre li nga xamante ne moom moo di mafia foncière boobee nga xamante foncière boobee ñu ngay xam ne nag ne onze zones yoo xamante ni ñu ngi ci dig digaluk ndakaaru mbuur ak ca Saint-Louis loolee la daal di concerné jàppal ni nag liggéey ba daal dinañu koy ndar képp euh, ginnaaw ñetti weer yoo xamante ni PM Ousmane Sonko nee na nañu ñu daal di koy audité formalisation jëm ci PME recettes yi nga xamante ni waa direction générale bu impôt et domaine daal koy def Abdoulaye Diagne ñoom la daal di àndal jamono joojee nag ñoom ñu ngay accéléré li nga xamante ni moom moo di mise en place centre boo xamante ne dafay jëm ci wàllum gestion agréé dina am fii ci diwaanu ko Sénégal le quotidien le quotidien dikk ak ñun ci massacre bu Caaroy 44 réewum Sénégal dina daal di changer de camp bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gi yor wàllum affaire étrangère mu ngay xam ne nag daal dina peuple Sénégal dina donné version wam des faits ci histoire bi nga xamante ne moom moo di Caaroy 44 yemboo ak 80e anniversaire bi ñuy màggal kër ba nga xamante ne amoon na ca diwaanu camp militaire bu Caaroy gaara Walf Quotidien la ñuy daw daal di koy seeti ji mu def lu ko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ousmane Sonko ak kii di am Ahmed Suzanne Camara mu daal di ne offense au chef de l'État atteinte à la sûreté de l'État terrorisme mu daal di ne loi yooyu nag nga xamante ni dafay gàllankoor liberté doomu aadama gi ba tey moo ngi nekk en vigueur du dara loo xamante ne suspendre nañu ko waxtu boobee ñu daan ne dàq gi nga xamante ne dàq nañ ko directeur général bu ONAS signal fort la ci lenn ci ay ministre ak ci ay directeurs généraux ngir ñu daal di gën a defaraat seenub toogaay les échos yéenekaay dikk ak ñun ci li nga xamante ne nag moom moo di commandé en première instance ngir mu daal di fay lu tolloo ko 7 milliards ci kërub liggéeyukaay googee ñu naan GTA environnement l'État du Sénégal li ko sauvé du leen lu dul cour de cassation bi nekk ca réewum Paris ginnaaw sanction yi nga xamante ne nag daal di nañu koy delloosiwaat ba ci 75 millions de francs CFA ndaxte nag jàppal ni GTA ak UCG moomee la doon dox seenub diggante lu tolloo ko milliards lañ doon laaj waaye nag cour de cassation bu Paris daal dina cey def ab liggéey bu mucc ayib ba réewum Sénégal lu tolloog 65 millions rek la ñuy daal di fay les éco yéene kaay la ñuy daal di des dikk ak ñun ci conclave bi nga xamante ni am na ci lenn ci ay membres yu partem Khalifa Ababacar Sall jamono jile nag mu ngay waaj a taxawal benn coalition bu yaatu daal di ciy dajale ñi fare ci kujjekk politique gi ndaxte nag ñu ci baree bari ci partem jamono ji déggoowatuñu ak Khalifa Ababacar Sall na muy doxalee ci wàllum politique dañuy dem daal di koy seeti ji mu dikk ak ñun ci drame bi nga xamante ne moom mooy am bés bu yàlla sàkk ci wàllum émigration clandestine mu daal di ne gouvernement bi responsabilité ci mbir mu ni mel ak lenn ci ay passeurs ñoo daal di yem ndaxte état du Sénégal ci ab tekk-tekkaaral la daal di nekk ñu xam ne nag daal di ne bés bu yàlla sàkk ay junniy ndaw dinañ fi bàyyeekoo dugg ci gaal gi riir uti ji fa nga xamante ne moom moo di ca Espagne bu ñenn ña àggee ña cey ñàkk seenu moo daal di ëpp Tidiane Ndiaye xamante ne nii moom moo di les airs ginnaaw air Sénégal googee nga xamante ni jamono jii kii di tiijan Ndiaye moo ko daal di jiite las quotidien dikk ak ñun ci première épreuve ñeel wàllum diplomatie bu Bassirou Diomaye Diakhar Faye aveu de soutien yi nga xamante ni nag jamono joojee mu ngi koy am ci séparation jëm ci li nga xamante ni nii moom moo di euh, juriste yi fi daal di nekk ak conseil supérieur de la magistrature googee nga xamante ni nag wàllub yoon ñu ngi ciy def liggéey bu mucc ayib waxtu tàggat bi mu dikk ak ñun ci interview bu yaa bi nga xamante def na ko ak le roi du di Youssou Ma jigéen Ndour Youssou Ndour moomee nag daal dinay livrer en son et en sens li nga xamante ne jëm na ci wàllum ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo di ndaw ñi waaye leader en Afrique dette yi nga xamante ne réewum Sénégal daal dina koy am nouvelle Afrique bi nga xamante ne war nañu kaa tëggaat waaye tamit ñàkk a bañ a nangu li nga xamante ne na ci wàllum dictature ci gouvernement gu yees gi loolee lépp Youssou jigéen Ndour daal dina ci addu leneen loo xamante xamante ne addu nañ ci muy wàllum tàggat yaram ginnaaw ba làmb ja sàjjee Albourakh Events daal dinay tëgg combat bi war a dox ci diggante Ama Baldé ak Franc noppiw ca mu daal di tëgg kii di liis njaago ak Lac Rose Gris Bordeaux moom daan ne jamono ji noppi naa ngir jàkkaarloo ak Zarko doomu Grand Yoff gi direct news la ñuy daw daal di koy seeti ji mu daal di dikk ak ñun ci dee centaines de jeunes yi nga xamante ne jamono joojee ñu ngi ci ab somage ñu daal di ne dara waralu ko lu dul wàllum foncier suspension ñeel li nga xamante ne nag ay opération la lenn ci ay zone yoo xamante ne ciblé nañ ko fii ak ñetti weer ndaw ñu baree bari jamono joojee nag boo moytuwul ci ab bay glace la ñuy daal di mujj LONASE daal dinay def rencontre entre la direction générale ak partenaire première bu 1xBet fii ci diwaanuk Sénégal ak syndicat des travailleurs ñu daw seeti ji source a source a dikk ak ñun ci li nga xamante ne moom moo di mouvement demeure foofee ca mine d'or bu Sabadola waxtu boobee nag nga xamante ne kërub liggéeyukaay gi ñuy woowee Sabadola gold opération ya daal dinay éclaté wu waral ba kenn ku ci nekk daal di ngay jël sa cëggal guy libération dikk ak ñun ci li nga xamante ne nag moom moo ñeel wàllum actionnaire bi di Abdoulaye Sylla ak plainte bi nga xamante ne lal na ko ci ndodd kii di Mamadou Ibra ak Alassane Samba Diop koppar ya nga xamante ne toll na ci ñeenti milliards compte woo xamante ne nag frauduleuse la ñu daal di cay dugal lu tolloog 855 millions 536 mille 917 francs CFA jamono jile nag parquet ba la ñu daal di saisir ginnaaw sûreté urbaine bi nga xamante ne mu ngay wëyal boobule enquête Vox Populi la ñuy daw daal di koy seeti ji mu dikk ak ñun nag ci li nga xamante ne lu doy waar la fii ci diwaanuk Sénégal muy ab doomu jàngoro goo xamante ne ab menace la jëmee ci bennuk yoo woo xamante ne ni ca ya lay faral di jaar di àgg ci doomu aadama feebar googee fii ci diwaanu Sénégal ginnaaw ba ñu ca gisee ñaar ci ay cas record yéene kaay daal di dikk ak ñun ci nataaluk Ismaïla Sarr Ismaïla Sarr moomee nga xamante ne nag Crystal Palace daal dina koy jël bu yees moom Ismaïla Sarr yëkkati na ay doom ginnaaw visite médicale ba mu daal di ne dinaa def sama kéem tolluwaay kàttan liggéey loo xamante ne bu ma taxawee ci terrain bi ñëpp danañ ma gën a nawati ñu jeexalee ko ak lamb mu dikk ak ñun ci dér bi Pikine Parcelles diggante Franc ak Ama Baldé ñu daal di ne nañu ko sukkandikoo ci xibaar wu anonyme ñu ngi ñuy xamal ne ñu Ama Balde ak Franc kenn ku ci nekk jot nga entre quarante cinq ba 50 millions ñeen li nga xamante ne moom moo di sab avance ngir nga daal di cay téewagum wàcc loolee nga xamante ne moom moo di lamb ji Ousin Ndiaye mboolem yéenekaay lii la ñu xëy fesal ci seen à la une. voilà euh, loolu moo gën a fës ci xëtu yéenekaay yi ñu ci doon ànd ak nga xamante ne moom mooy soxna. Euh, Binta laay xam naa nag euh, liñ ciy commenté euh, du bëri ndax daanaka lii mi ciy jukki lépp daanaka mu ngi ci actualité bi donc dañuy dem générique léegi-léegi ñëw rapidement ci actualité bi ànd ci ak soxna Bélia ñu ànd ak ki nga xamante ni moom mooy